fii moom ñaar moo am euh, fii sa ab taalibe laa fi soxna si dafa am ñaar euh, day sama sëriñ ñaar yoon dey sama sëriñ ci kër suñu soñ bu di sama sëriñ ci kër sëñ Basiru ndaxte maa la koy leeral ki jur ak sëñ Basiru yaay suñ Muntaxa ñoo bokk benn ndey euh, ñaareel ba ci des premier ministre moo boole ak moom premier ministre da ko jàppee sëriñ jàppe ko mbokk Euh, jàppe ko gaynde ak parti bi hmm. euh, élection yii yii fi jóge euh, wax na ci gémmiñam ni bu amoon juróom ñi mel ni moom comme Touba bu tuddee nelaw kon nag soxna si maa ngi lay sant di la gërëm ci turu premier ministre di la sant tamit en tant que sa talibé di la xamal ni siggal nga nu ñun askanu murit wépp ndaxte bu fekkee Macky am na fi benn naqar faj nga naqaroo kon nag ñoo ngi lay sant di la gërëm wax ji jërëjëf guddal sant nañ la bu baax président sant na la premier ministre sant na la yàlla na la say waajur taxaw ba lii nga bëgg li lii nga bëgg a defal président Macky Sall ci dëkk bi lépp ànd jërëjëf. turu soxna maam Xari Mbàkke moom Cheikh Mamadou Mourtala mu wax ni moo bëggoon a ñëwal boppam teew ci bis bii nga xam ne bisu waajuram la. bëgg a teew ci bis bi nga xam ne bisu waajuram la nga xam ni yaag moom yéen a ci bokk benn wàccuwaay ba pare nga féete ko ci fii nga ko féete woote ko may ko occasion mu man cee ñëw teew ci teewal ci mbooleem njabootu seen moom Mamadou Mourtada gépp nee na mi ngi lay sant bu baax ci di la gërëm ci di la ñaan yàlla ci bis bi taxawaay bi ak yéene ji ak li nga ci bëgg a def lépp. sama borom dimbali la ba nga defé ko nim la sobé ak ni nga ko bëggé té lépp dëppoo ngërëmul Seyd Touba ñaan yi suñu borom jotale ci Cheikh Mamadou Serigne bu Mbacké mi nga xamni mom lañ koy defal néna sa digënté ak moom néna ak bokku la go xamni lépp lu ci rafet néna sa tank ak sa loxo ak sa kaddu jogu ci né li nga ci war lepp yang koy def Yang koy yang yang koy fek fam nek yang jëflanté mu jëflanté bu rafet dara dara dara desul ci sa diggante ak moom ci lu la war nee lépp lu ci des rek nee na ci moom la waaye yow li la war lépp yaa koy def nee na loolu nag tax na bu mu bëggoon a teewe bés bi fekk fi bokk yi fekk fi taalibe yi fekk fi am di jàmm yi ba seere leen lool ci sa diggante ak moom xam ne seenub ànd sëñ Tuubaa mi ko sos dogal ko nee na moom rek moom la koy bàyyee ànd bi nee na yàlla na ko dëgëral te sàmm ko ba lim ci yéene mu def ko lu kaw njot nee na àndewu leen politique leen ngeen fekkante ci biir terrain bi waaye nee na sëñ Touba ngeen ànde sëñ Souhaïbou bi nga ànde sëñ Mourtala ngeen ànde nee na kon nag mi ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla taxawaay bi yàlla na yàgg lépp loo man ren déwén yàlla nag man lu ko ëpp lépp lu la waay yéene ci lu baax ñu ngi ñaan yàlla na ko sama ful lépp bépp taxawaay boo xamante bi itam am nga ko ci dëkk bi yéene ko ci nee na mi ngi ñaan suñu borom yàlla sàmm la aar la nga defe k la kaw sa jot aouzu billahi mina shaytani ñu ngi sant Serigne Touba di jaale suñu woy wàññeeku yi nga xam ne Serigne Béthio Thioune ak euh, soxnay euh, sëñ Abdou Karim ak soxna May ñu leen di jaale yàlla na ñu dajeeg Serigne Touba bisub tey bi dafa symboliser lu bëri ndax ku xam sëñ Choyé xamne Momo moom symboliser liñuy wax la connaissance islamique les enseignements islamiques euh, le culte du du du mouridisme basé sur les fondamentales de l'islam C'est le que le représenté woon waye so xolé tamit le seigneur Touba bindone bi muy wax ya ayyuha la anil udaa fastihaloo bil ulumi bi hifzi wa tilawa wa tanibu majalisi shaqaawa dinañ xam ne sëñ Touba département bu mu créé teg na fa ab jëwriñam boo xam ne moom mooy la référence moom mooy le guide ci département boobu donc li sëñ Touba doon def un appel aux jeunes pour ñu dem à la connaissance xam-xam dem nag di ko wuttu di ko durusu di jàng xam-xam fu mu munta nekk fii ba Chine

wax dëgg yàlla jaar nañ ci daara sëñ Cheikh bu léegi nag loolu la ko gën a incarné mooy doomu sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Cheikh Say ñi nga xam ne tamit ñoom mosuñoo jógee ci jàngale islaam jàngale diine jàngale yoonu murit loolu moo ñu fii noonu ñu koy ziar ñëw nag fii kër sox soxna maam sey li nga xam ne wax dëgg yàlla dey Euh, dañu dul wax ne euh, takkalaat sa géeñoo ndax góor waaye moom wax dëgg yàlla taxawu na taxawu góor taxawu na taxawu cheikh taxawu na taxawu tamit baayam ci li mu bëggoon ci ay taalibeem yaatal nañu mu ngi ñuy toppatoo guddi ak bëccëg mu ngi daw daw suñu ginnaaw mi ngi ñuy woo suñ ko woowul sax def ñuy woo fu ñu nekk tamit dinañu fekk te li ko waral lépp mooy soññuwaat ñu ci baayam

di yu mboolem ñi fekk di ay mbokk ak ay taalib maam say ministre mi ngi lay nuyu bu baax ministre mi ngi lay nuyu bu baax di di eh, dellu fedd li sa kóllëre rek moom ak tam li xam ni li tax a gën a ñëw muy liggéey bu am solo bi ngi liggéey président ci Touba muy liggéey bu am solo boo xam ni ñoom fàttewuñu ndax fii ci Touba ci arrêtement bi ñu ngi ciy lu bëree bëri ba ci Touba Belel gee ñu dëkk nga liggéey fa liggéey bu am solo boo xam ne président xam na ko looloo tax bis bii. Euh, ñu jóge ci cérémonie officielle bi Cheikh Mbacke Sakho ku jara sant la parce que lu baax dañ koy yëgle jàmbaar it da nga koy wanale nit ñi bi ñu waxtaanee waxtaan ak mbay peex. sëñ Modou mii ñëpp a xam taxawaayam jàmbaaru fakk tëdd la fii ci kii kii ci Touba ak ñoom Moussa ñi mu àndal yëpp parce que combat boo ci duggee du bu neexee rek la la nit ñi war a xam bu méttee ci la ñu xam jàmbaar yi te soxna si sa tur yegg na foo xamante ne xalaatoo ko surtout ñu ànd ak président Macky ci sa taxawaay ci sa dëgër fi nga taxaw moma bi nit ñi doon douté nan dana sorti wala du waye mo so jeng fi nga taxaw rek nga taxaw lolu nak su amé suñu ñëwé ci cérémonie officielle bi mënoon nañoo dëpp waaye daanaka li ñuy dox ni firnde la ne kilifa réew mi xamna fi nga taxaw premier ministre Boun Abdallah bi nek sax wala reet xamna taxaway bi nga am dikk fii day baax parce que da nga ami taalibe ami mbokk ami soppe amiti noonu parce que nit ku baax da ngay am ñu lay encouragé nag parce que yéen ay soxna ngeen di njobootu Serigne Touba lu ngeen def jàngale la war a doon nit ci li nga féete ñëpp war a xam ne ci li nga féete loo nekkul nekkoo ci waaye ci lu nga nekk daf lay jaral lu ne te jaral na lu ne ba président Macky Sall yàlla nangu ñaanu sëñ Mountakha ba mu falu nam ko bëggee woon mooy ndam lu sedd guy nooloo fi am li ci des yëpp nag ay wax mbiri àdduna la waaye bu loolu yëpp wéyee xëccoo ay président ay député ay maire yëpp mbiri àdduna la waaye bu loolu wéyee taalibe Serigne Touba moom dara mun leen taqali parce que bu loolu wéyee dañuy daje ci Serigne Touba te loolu kenn mënut a gàddu yëf yi ba ko bàyyi sa morom ñëpp ko bokk kon na ñëpp xam ne ak pal moom. ña ca bokk ak ña ca bokkul yëpp dañu leen war a sant parce que mag yi baax yi dañu naan boo waree falu ñi nga ñi la war a fal rek ngay àndal soo amee kenn ku ci warta bokk rek mi dul sotti donc ku ñuy nanguwul naan déet dañ leen war a sax jox cër parce bu buñ duggoon sax mu yàqu. waaw kon noonoo xejul ci yi ñuy def ci réew mi. ku ne da ngay xëcc rek jëmale sa bopp def li nga mën bu la yàlla joxul nga xam ne joxul waaye bu paasee ka gagné kañu gagné yëpp dañu war a doon di taalibe booloo pour réew mi dem kanam kon ñu ngi lay ziar bu baax ci sa bésu wayjur bi di gërëm mbokki taalib yëpp di gërëm nag sama nijaay moom sëñ Askia parce que nit ku baax la euh, nit ku baax weesuwul njiitu réew buy tukki gaa yi naan kii toog ak moom kan la njiitu réew du tànn ku bon di ko di ko dugal ci otoom ñuy wër nga boole ko nag loolu lépp ak oyof goo xamante ne koo gis yéen nga ko jàmm kon fekk la fii mbégte la ci ñun eh, ànd ak ñoom daam sëñ yi nga xam ne waaye Jurbel lañu nekk taalibe moom tamit Moussa yoo tam maa lay sant ci sa taxawaay ak ñi ñu àndale parce que Moussa ku baax nga yow bu ñu ñëwee fii dangay fàtte sa bopp. waaw ni ñu lay tuddee Matar ba numéro de nag baax na su ko defee ñu mën a ànd <laughs> waaw gis naa madame Youm madame Youm ak moo kër yëpp a ngi fi parce que ñun rek ànduñu <laughs> suñu jigéen ñi baax ñi la ñu àndal ñu am ci yow cër am ci yow cofeel fekk fi Arona aussi ak soxnaam parce que moom moom suñu mag la le ministre Arona Coumba Ndoffène ci dëggoom ak taxawaayam aussi sama yumpaañ ji nag moom maa koy ziar maa ngi koy soo gis tey waaye dinaa ko seeti waaye daal tànk yi daal tànk kóllëre tànk mbokk tànk taalibe tànk ñu jàppante gëm benn mbir di ko dox ñu reconnaître nag li nga def su ñëw fii yëpp reconnaissance su effort yi nga def ak li la li li jafe-jafe yi nga ci jànkonteel waaye gëm gi nga ngëm ba yàlla may la ndam ci li nga doon wut loolu mooy tànk yi nga xam ne moom la ñu dox kon ñu ngi lay sant di la gërëm ndax euh, président bu jël délégation bi xam ne ci yoonu Murid lan bokk mu day délégation boo xam ne ni day mbégte moo xam ne mënu ma ko wax bis bi moom li mu méngoo président def di sant bu baax mi sëñ Matar Ba mm-hmm. ndax politique boolewuñu mm-hmm. sama goro bu jur sama borom kër mooy seen ñoom man ye maa ngi toog waxtaan man ma maam si xamante nga matar baa mëna ma taal sëñ bi jëf jëf nga xamante mëna ma ko baax bi ci sax kon nag loolu ab dénkaan sama diggante sëñ Sidi di sant bu baax euh, sëñ Jaam di ma wax sëñ ma taal ma rek ñu benn di sant bu baax nii hmm. ñu bokk muy sama xarit torop di sant baax nag maam STA hmm. moom heure bu ne ñuy wax téléphone ba xaaju ko su ma ko def pression lu ne ma koy def lu ne ma koy wax damay dem këram tax naan fu mu gën a di ma toogal. ngoy ma jox ay ngoy kon nag moom it mënu ma ko fay di sant nag daan ndax mu fekk dafa jël sama xel teg wetam ko déglu loolu ak yoonu Murid di sant baax musal mus ma dootee di doomi kër gi taal bi kër gi di taal bi siy seex doom ci kër gi li ko war kër gi lépp moo koy toog suñu diggante fii sama koy di sant baax sax naa bu baax dafa sant gën di sama xarit benn ba tam yàlla di sant baax Anta ma madame Youm soxna euh, ministre Oumar Youm di ko sant sant borom këram borom këram tamit jàpp ma loolu di sama xaddu benn bakkan jàpp ma euh, téye ma kon nag moom mënumaa fay sant ñëpp di sant nag président. Hmm. ndax man parti bi rëcc ma dugg ma ci dugg xamaa naa lu ma rëcc. Hmm. yéex gee dugg jox na ma cër téye na ma jàpp na ma jàpp na ma soxnaam di sant bu ma ne premier ministre Mouhamed Abdoulaye Dione di ko sant bu baax sama dugg ci parti bi ginnaaw yàlla ci loo xam la jaare waaye jaage jaare dama ñuy parti bi jàppale ci damay gën a jël samay engagement ci bàcc bi di gën a jàppale président ba li mu bëgg rek Sénégal mu mën koo def ndax yaru na am nay teggin am na fu mu teg suñu tubaab suñu kilifa la ko suñ mën taxaa waxoon rek ne ko bu la ñuy fay suñ tubaab fay loolu mooy ndamam lii tey jii ndam nag yal nañ jig laaya yéen li ngeen bëgg ci réew mi yal nekk suñu tubaab di fa yéen ñëpp di sant baax parti bi ci tubaab yëpp bàyyi ma kenn senes bi mag ñi ñëpp bàyyi ma kenn monsieur le maire sëñ Bass Thioub Ba léegi la fi jógee di sant bu baax Moussa Thioub mi moom it di sama rak di sama lépp ma kenn euh, sëñ Mata Ba parce que kontaan naa bis bi lépp moo ko def avant def na mhm. di sant bu baax nag Cheikh Abdou Cheikh di sant bu baax. Mhm. di sant nag sama borom kër bi nga xam ne. sama mag la moom moom cant gi moom sax sûrement nga sant sëñ Modou. day sama mag. sëñ si di di sama bàyyi ki ma yóbbu ma beral ëmma fa leen lu ma naqari politique bi sëñ si damay jàppale bu baax di sant tamit nag sëñ Cheikh say di ko ñaanal hmm. bu baax yàlla may fan gudd ko wér moom it sant waaw sëñ Mbacke Sakho moom Cheikh Mbacke moom moom moom dama koy ñaanal du ma ko sant hmm, hmm. day sama waajur ci côté bu nekk dëgg la li muy def suñu seex sax diggante président man du ma ko wax te maa xam na man xam naa mhm. li muy dox si diggante bi xam na xam naa dama koy ñaan rek moom it yàlla may ko fan bu gudd ak lu wér di sant sañ jéeri sama doomi nijaay jee moom it <laughs> di ko sant baax du gën di sant